man man man je pense que dafa am loo xamante ni bu ñu ci deful attention tuuti dañuy nekk ci une éternel recommencement éternel recommencement bi lu koy waral mon père daf ko wax léegi dafa wax moom solo da ne Macky Sall bàyyi woon autosuffisance ci wàllu ceeb mais jarul muy gudd mën nañ xool lan moo bloqué woon loolu am na lu ci doxoon te et ñu bàyyi xel nguur gi fi jóge mënuñu wax ni def fi dara d'abord loolu lañu njëkk a leeral am na yu baax yi mu fi def yu baax yi mu fi def alhamdulilah nañ ko tegee ne mu continuer di baax mu am suivi am continuité li doxul woon ñun sénégalais loolu lañ soxla mu réglé wu mooy question yi ñu fi wax léegi. Hmm. et man ñii fi toog ak ñii di leen opposé wu góob ma ci kenn am na intérêt Sénégal yàqu wala kenn am na intérêt pour mu bañ a dox. léegi pa wax léegi dafa am solo léegi comme wàllu dund la ñuy wax te wax dëgg tamit donte bu dee état bi day wax ak ñi fi ne dëgg def déclaration ne dund bu cher xam ngeen lan la ñun mënuñu ko wàññi fii ak temps. mais fii tamit ñu ngi koy bàyyi noonu sénégalais yi tamit dañ naan ñoom ñoo ñu waxoon dañuy wàññi dund bi. discours de vérité bi. dañu indi discours de vérité muy communication bu arrogant wul communication bu dal bu yaru boo xamante ni xam ne ñi ngay waxal ñoo la faloon. Mm-hmm. respecté leen. ne mm-hmm. leen kat ñun li ñu gëm bi ñu xoolee li ñu xam-xam wax mooy pour wàññi dundu gi d'ici temps la mënagul a nekk léegi. Mm-hmm. pour pour subventionner lii d'ici temps la pour wax ak jàngalekat yi ci lii Abdourahmane Diouf def na ko dafa dëgg. boo waxee dëgg di nga a mën a neex a waxal. léegi nag beneen beneen problème bi ñu amaat mooy du ma dem kii du dem. Hmm. politique discours politique politicien boobu nga xamante ni actuellement maa ngi gis sur réseaux sociaux yi ba tey ñuy continuer di saagante te li ak casse totale yi koy ñi koy def ci pouvoir bi lañ bokk loolu il faut ñu interpeller leen mënoo leen fexe ba nit ñi duñu wax seen xalaat. parce que da ngeen a wax seen xalaat ba falu. ñun dañoo ànd ak yéen di xeex ngeen di wax suñu seen xalaat ñuy wax suñuy xalaat. àdduna bi nit mënta wax ba def fi lu defewut duñ ko wax ak koo mënti doon. Hmm. saagaat. menacé leneen ak leneen a ci yem te nag te nag maa ngi gis ay image yoo xamante ni nañ ci bàyyiwaat xel li ci président de la république du ci Bassirou Diomaye Faye opposant ñun ñun ñun dañoo habilité pour wax ko. Mm. parce que mënoo fee nekk tam président fu mu ne nga bëgg a lambar lambar topp ko. dëgg la bay am problème ak ay gendarme xam nga yooyu il faut ñu wax ko. mu leer ñu xam ni kii di le président Diomaye fay comme na ma ko waxee woon président de la république tous les sénégalais la. ñoo ko voté la ñoo ko voté lu la te moom ma koy suivre ma mu def acte bu wane ni moom du président wu kenn. Mm-hmm. bi mu toogee li mu war li mu njëkk def réconciliation nationale la njëkk a def. récemment la fondation Frédéric eh, Frédéric Ebert wooluñu si ñun collectif ñoo lànk ak euh, médiateur de la république pour ñu xool lool naka lañu ci mën a doxee ak Innocent Estap Ndiaye mm. pour ñu xool loolu naka lañ ko mën a àndee doxee ci tey bu ko wootee moom ba pare wax ci lanceur d'alerte c' est parce que kooku xam na ni et eh, bi muy def premier discours dafa tudd opposition bi mm-hmm. kon donc man jàpp naa ni des fois buur du am problème mais ñi ànd ak moom yaakaar ni la woon démb la woon wonni na yow boo doon ut bokkut ak boo yoree da nga doon ut jox nañ la liggéey ngay ut xam nga lu fi des problème yii ñu la dicteur naka lañ koy regle problème yi nag bi ci jiitu comme comme ni ñu ko waxee mooy dund gi bu dee munta ne man li may demandé nañu wax ak dëgg sénégalais hmm. te wax ci arrogant dafa bari parce que dafa créé woon haine Sénégal gis nga li ñu weesu haine moo fi amul hmm. dañoo dem ba ay étudiants di bañante di taalante hmm. ay nit di jamante gis nañ fi policier bu tëdd set civil fekk ko fa ak brique dóor ko. xeen moo amoon xam xeen boobu lu ko fa indi. le minimum de politicien bi nekk Sénégal par des discours arrogants. kon nag ñii fi ne ñu leen di interpeller lu ñu mayul Macky Sall ak waa këram yéen lu ngeen mayul Macky Sall ak waa këram ñun duñ leen ko may ci bu ngeen deful dëkk defoo leen yoon te dañoo habilité pour wax ko parce que dañoo fekkee xam. te da ngeen bokk leen ànd ay xeex yu daan am sax dañuy doon ñenn ñi dañu daan woon naan yéen a a jug parce que ñun suñ jugee dañu naan ñu ay politiciens lañ et c'est ça la ñun duñ nax askan. askan boobu nag tey lan lay xaar xaarul xeex xaarul xuloo xaarul nit sax ku defee lu baax parce que politique Sénégal soxna si nga baal ma xam nga lu ko yàq un day ñëw indi indi indi benn projet bu am solo ci koñ bi pour askan bi développé. Hmm. waa koñ bi ne non buñ koo bàyyee da ci am atu politique. buñ ko def nañ ko yàq.